di ko xam ne macha allah macha allah macha allah ku koy topp daanaka mën naa dangay xam lii xew lépp ci bitim réew bitim réew nag buñ ko waxee mooy dañuy dem ci sunu mbokki jullit ya lafa xew gis ngeen ko ci fan yi mooy waa Hamas dugg fële ca Israël dugg ci seen camp boobu noonu jàpp ñu bari ci ñoom rey ñenn ñi voilà Hamas nag nekk ñoo xam ne ñu am fit lañ di kuréel goo xam kuréel gu am fit lañ. te ku nekk xam na ni Israël moom dañuy tooñ danoo ñëw ci suufu jàmbur ñu dooleel leen am ñu nekk seen ginnaaw ñu jox leen matériel jaay leen ñu nekk ci euh, suufu jàmbur di leen notaka euh, lu nekk ñu di leen ko def xamoon na ni bis bii di ko am voilà te nag euh, Hamas tey la seen ñeenteel bi fan ci guerre bi nga xam ne ni mi ngi am foofu noonu ci diggante Israël ak Hamas am na yeneen réew yoo xam ne nag ñu ngi wax ñu ngi wax ngir mën a tàbbi ci loolu waaye nag euh, yaakaar naa ni euh, israéliens yi moom bu dee européens yi am na ci euh, réew européen yoo xam ne taxaw nañ pour jàppale leen voilà jullit yi lu ñuy xaar ñoom it taxaw pour jàppale Palestine mbir mi foofu la toll ndax xam nga lan la lu muy yàgg-yàgg rek jullit yi ñooy féete kaw parce que maanaam jàpp naa ne jullit yi bu maanaam chaque jour rek chaque jamono yàlla day atte xoolal tey waa Hamas doon kuréel gu bari de mais fi toll ni diggante bu gàtt yaakaar naa ne ci huit million ñoo xam ne ni jaarale nañ leen aw yoon fi mu toll ni maanaam fi toll ni israéliens yi ay ragal lañ fan nekkoon sax doon fa def ay réunion yooyu bi ñu roquette yi joge yaakaar naa ne bi mu daanu see foofu ñoom ñëpp a tasaaroo ñi ma woon voilà ñi nekk seen ginnaaw di leen ruux ak a jaay donc moo tax ñu ñeme seen appareil yi nga xam ne ne dañoo waxoon ñoom kuy dugg foofu noonu kuy dugg ci seen réew dañ koy xam ndax yor nañ ay appareil wax bu ñu la ko tëppee lu mu bu doon ngelaw sax danañ ko danañ ko capter voilà léegi waa Hamas bi ñuy dugg foofu noonu fa seen appareil yooyu nekk kon loolu day wane rek maanaam suñ borom mi ngi ànd ak jullit yi voilà réew arab yi nag nañu taxaw kenn ku ci nekk nañ def déclaration pour jàppale euh, euh, pour jàppale Palestine parce que tamit euh, européens yi dégg naa ci Hollande ak Amérique ak yeneen européens yoo xam ñu ngi taxaw pour jàppale Israël loolu lañ wax voilà léegi nag réewu arab yi am na ci yoo xam ne ni ba tey ñu ngi ni cell waxu ñu defandal Égypte rek nga ci gis ni maanaam mi ngi jël ay aide daal pour di leen ko jàppale wala aide voilà beneen bi ci des tamit dégg nañ ci ku ci mel ne Erdogan wax na ci voilà mu nekk koo xam ne moom vraiment euh, ak njullitam moom kenn dootu ko werante voilà en tout cas daal fi mu toll nii foofu la toll parce que nag euh, da ngay gis ni maanaam boo xoolee sax yenn médias yi nga xam ne dañoo nekk ca loola mooy lu ci mel ne Al Jazeera ak yeneen médias yi da gis ni.